ba tax ba man Babacar xam naa ne maa war raw ba tax ba man Babacar xam naa ne ma war a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral man jàpp naa sama xol bi teg fa yàlla bu wér faw ak fa mboolem ña koy mokkoo jaamu bu wér njagam damay jubadee kay sax ci def lu warul xol baa ngi ànd ak ña sax ci jub te sax ca ndegam damay ku jiiteeful muy fanaane sikar teewul sama xol mi dàkka ñuy fanaane sikar ndegam bu guddee ma songub lal mi xam mu ca kaw xol baa ngi ànd ak ñu dul mu seeni lal fajar ndegam dama boole mboolem guddi yépp rayit xol baa ngi ànd ak ñu guddi bu bir ndegam bakkan bi damay nootee not aka war xol baa ngi ànd ak ña koy not nos ko jàpp ko war njagam damay waaju ay noonam notit dumatee di soppakay sant ñuy xar boppi noona ka cor damay ku na koo xam ni ñépp ko man xol baa ngi ànd ak ñërëy aw fit ñi miñ bari ngor njagam damay waaju sellul sellalul dumatee di sopp ñuy sella kay sellal fu ne ka defar njëgam damay dox di manqué kay tayee la ka des xol baa ngi sopp ñamat faj gàcce jiitu sawar njëgam dama ne fi suufit maa ngi sopp akañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yàlla ca bokk ci baaxu yàlla gën ca buur te jurum ñu bokk ca ñoom ak gën ca buur tax naa la jébbal samay mbir lépp a ngoogu fabal tefam ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a jàppal yoral defaral baaxal musal wattu ñàkk ak lépp taxaruur dakul nooy falangal lor joo ak junu xetul nu waa mew nga nee wutam du wulóor ñoddil nu lépp lu sedd xol mu ñëw nu nuyoo jàmmante jàmmoo ni dàkk ak jàmm juy ma dil njariñ la ca màkkaaki madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yët nu yow sunu buur jébbal nu yiw wa ci suuf ak yiw nekk ca kaw ak yépp yiw ñu def seenu diggante nu ngoor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër gee gépp yal nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci nun faw gépp xam-xam njariñam te yor musab yor a gën sax fopp yor yat nguur musal musawu ci buur ak yat wa yal nanu muy tey ak ëllëg dal sunuy bañ bopp toj wana yuur jëbal nu mucc guuteel ak barke ak mba mu sax ak yërmandey dex junuy tàbbee ka féeye ka nuur setil nuy ci duniyaa jépp ak yacalaa xiraati jébbal nu faw ak salli cant yu suur yàggal mu àddina lool ak jëf ju yiw ju la saf du nuy saxal ci yow ak loo sant cant góor